wa tubaarakul xarakaat wa tudduaful xasanaat summa salaamaani taamaanil kaamilaani ala akmali wa ashrafi rusuli sayyidina wa mawlaana muhammadin mashhadi zaatihi wa markazi anwaarihi wa manbaci asraarihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al yàlla yàlla faj seeni aajo yéen ñépp waxtaan wi nag dama koy jëmale rek ci élection yi ñu dëgmal te élection yi locale ndax ñu ngi ci jamono joo xam ne dañuy dëgmal élection yoo xam ne moo ëpp solo ci mbooleem élection yu ñuy def ci réew mi mu nekk xëccoo gox yi ak xëccoo mairie yi te mairie yi ci Sénégal yépp boo ko calculer cinq cent cinquante sept mairie la kon lu mat juróomi téeméeri meer yi ak juróom fukk ak juróom ñaar juróomi téeméeri meer ak juróom fukk ak juróom ñaar ñu ngi koy xëccoo pour toog léeg léegi nag nga gis gox boo xam ne dana am fukki candidat ak ñaar am gox boo xam ne am na douze candidats am na yu am huit am na yu am sept am na yu am quatre maa foo ne daal mairie yi daraa ngi waaye ni ko gars yi di xëccoo yeeg lim leen jaral ngay xas nit di ko yàq di ko liggéey di def lu ne maa foon daal bu doon dama leen bëgg a jiite ngir ngir defaral leen rek du mel nii waaye damaa foo daal dama leen a bëgg a jiite ngir defaroo leen ma nga waaye daal bu doon yàlla kese saaga yi ngeen ciy dégg ak rayante yeeg xeex yeeg yàqante yeeg du ko gene ndax lépp lu ñuy xëccoo du yàlla loo dégg ñu koy xëccoo jërul sonn du yàlla waaye xëccoo bu métti bii mbiram àdduna rek ko tax moo ci gën a bëri mairie yay xëccoo yëpp ñaar rek lañ cinq cent cinquante sept yëpp ñaar rek lañ kenn ki mooy ki mosoon ne doyulaguma damaa bëgg ngeen mosalaat ma xanaa kooku moom koy boo tuddee ko mos doon yi bëri na ci lool nag ku ñaareel fi mooy ne man kat lii ma gis kenn duma ma ko nettali kii ab bëri na fi ñuñ fal ñoo xam ne bañ leen di fal amuñ dara ba ñu def ak benn mandat am ñaari kër am ay oto am ay compte banque mosal leen ma dama cee bëgg a mos kon ku mosoon ne nañ ko dolli ak ku mosutoon ne dama bëgg a mos ñaar yi daal ñoo ci gën a bari ku ñetteel ci nag boo amee bëriwut mooy mos delloo mos doole dañoo gën a bari mos delloo yi damaa mosoon mais damay delloo moom bëriwut kon ñaar ñii rekk lañ ñaar ñooñu ñaar lañ ba tey am na ci maire maire yoo xam ne seeni seen leaderu parti moo leen investir jiital leen ca gox ba am na ci ñoo xam ne waa gox ba ñoo leen tànnal seen bopp ne yéen seen jikko sa jikko doy nañu dañoo bëgg nga jiite ñu boobu nag moo gën a wóor fuuf nga xam ne gox bi moo tànn sa jikko ci sa maandu ci sa lu ba ne kaay jiite ñu boobaa gën a wér boobu tamit lu coow liy bari bëri kookaay jàll ku la mën a proposé ci gox électeurs ya buñ ci àndut doo dem kon électeurs rek yéen a yore kàddu yi yéen nag dama leen di wax ngeen kay ba na juum ndax élection yëpp bii moo ci moom ngeen gën a moom ngeen gën a jekku moo gën a nekk tamit seen alal moom ngeen gën a moom élection yoo yi bëri na koo sànnil karta xamoo ko discours am rek nga dégg waaye fii gox boo mën a dem koo sànnil karta rek xam nga ko xam ay waajuram xam démbam xam sayam fii ku fi laaj gox bi rek xamante ngeen am na ci gox yoo xam ne ñaar fukki dëkk ak juróom ñeen ni ngi ñaar fukki dëkk ak ñeent yéen ni ngi fukki dëkk ak nangam te ñëpp dañoo jaxasoo bokk digaloo ci ay tool xamante ci lu bari laxasoo ci ay goj su boobaa nag kon yow ki ngay sànnil sa carte bi comme xam nga ko tey bu baax bul juum bu ci bëggee tey nag bañ a juum maa ngi lay ñaan tànnal melo mais bul tànn jëm saa yoo jëlee sa karta di ko sànnil jëmm te sànniloo ko melo bu jëmm toogee rek soo moytuwul li ngeen amoon lépp mu sàcc ko li ngeen bokkoon yépp mu bokk ko li ngeen bokkoon nag bu ko bokkee fu ngeen jëm ngeen am problème ci seeni tool yi am problème ci seeni bëri yu bëri waaye boo tànnee melo doo am problème melo mooy lan tànnal ci juróom-ñaari melo yi ma bëgg a wax nekk ci moom ki ci njëkk bu ngeen ni tànn tànn leen ku wóor koo xam ne li mu moomut bëtam sax du ca tege waxuma la loxoom mooy bu njëkk bi ñaareel bi bu ngeen ni tànn tànn leen ku xereñ li ngeen mënut ba tànn ko jàpp ko ne ko yow yaay ki ko man yow lañ ci jiital mu mën leen koo mënal loolu nag yonentu yàlla Muusa boo koy jàngale keroog bi doomi Yaquba yu gisee melokaan wu nekk ci moom lu mu ko wax yaa abati stajirhu inna xayra man istajarta alqawiyul amin yow suñu sama papa dañoo bëgg nga jël kii def ko tey muy sa surga jël ko nga jiital ko ku xereñ la mais en même ku wóor la papa ji ne ko ko la wax ne ku xereñ la mu ne xereñ du dara lu dul def lu kenn mënul ku def lu kenn mënul rek yaay ci xereñ te nga defee ko noo xam ne bal tàkkut saaga amut xëccoo amut xuloo amut mu ne ko lan moo lay tekkil xereñam gi mu ne ko xeer wa nekkoon ca kaw teen ba fanweeri nit di ko yëkkati ñii ne ñeent fukk ñii ne juróom fukk ñii wax lu ko ëpp moom mii moo am xerañ nag yëkkati xeer wa te kenn jàppalewul ko ca kon li kenn mënut moom mii mën na ko kon ku ko jiital jox ko say soxla mu defaral la mu ne ko ku wax ne al amin la mu ne ko waaw waaw bi ma wooyee nañu wool ma ko dama koo jiitu te man maay xam kër ga jublu ci pour man koo indiqué mu xam fan la kër gi nekk mu ne ma déedéet jigéen ak góor bu ñu àndee te góor ga takkul jigéen ga jigéen nga waru koo jiitu mu koy xool moom góor ga du xam na muy doxee bàyyil man mi xamul kër gi sax ma jiitu nga ne gauche droite gauche droite bañ yegg ca kër ga lii la tax ma ne xawiyul amin la moo tax kon kuy jiital jiital ku mel ni Moussa ci jub kuy jiital jiitalal ku mel ni yonentu yàlla Moussa ci xel xere ñam nga mën a joxe discours moo ko yóbboo pouvoir bi mu fekk Firawna ak doole ja muy jaamuloo fameem ya mu jël discours ak xereñ nga di wax ak moom ba xëy nëkk na ci géej gi la na amoon nag njabootam gi yëpp yàlla teg ko ci loxo moom ak njabootam ka kon booy jiital jiital inna xayra man istajarta alqawiyul amin ñaareel ba yonentu yàlla yuusufa moo koy indi booy fal falal koo xam ne ku am xam-xam la waaye boo fi falee meer boo xam ne dafa cuune mënul lijjanti dara xamul dara problème ngay am tànnal ku am xam-xam am xam-xam nag tekkiwul dégg tubaab tekkiwul dégg arab yooyu ay jumtukaay la waaye am xam-xam piir mooy fexe ba mën a lijjanti xaalis lépp lu gox bi amul nga mën a fexe ba mën koo lijjanti ji andi ko fexe ut ay coopération ci biti fil aajowoo hôpital fi aajowoo case de santé fi aajowoo école fi aajowoo courant fi aajowoo yoon fu aajowoo lépp lu dëkk bi am lu lu gox bi soxla rek nga mën a dem mën koo lijjanti ci kooku mooy boroom xam-xam mooy am xam-xamu mën a lijjanti xaalis waaye ñaareel bi tamit nga am wér mën a wattu li gox bi am doo ci sàcc dara doo dimbal tamit ku koy sàcc doo doolee tamit ku koy kooku yonentu yàlla yusufa moo koy indi mu ne ijaal nii ala xasaini l ardi ñu ne ko lu tax mu ne inni xafidun alim xafis mooy lu gox bi am muy local bi danaa leen ko gardeel ba kenn du ko sànq alim mooy lu gox bi ñàkk danaa ko uti indil leen waaw kooku kay boobu maire lañ soxla maire boo xam ne li ngeen am lépp dana leen ko gardeel duñ sàcc seeni tool duñu jël seeni suuf du ñu jël seeni moomeel lépp luy seen soxla mu taxaw ca waaye lu gox bi ñàkk ci xéewal mu fexe ba wuti ay coopération ci biti mën koo indi ci tund wi kooku lañ soxla kooku mooy ijalni ala indi ardi inni xafidun alim juróomeel ba yonentu yàlla benn maanaam e, juróomeel ba génn kilifa gu mag bokk ci ñeenti ñi mos a ilif àdduna bi moo koy indi mooy dul xarnayni mooy tànn leen meer boo xam ne dafa leen a jege bu ngeen amee bànneex gis ko su ngeen amee naqar gis ko su ngeen amee seen dossier yi ñu war koo signé du yendal du fanaanal la mën a sotti waaye maire boo xam ne boo ko falee ma nga ndakaaru ma nga feneen mën naa am weer wu ne benn yoon lay ñëw fii dossier ñi ñi téye ko mu yàgg balaa signé yàlla xam lépp di tardé déedéet fan leen ku leen jege tul xarnay ni kat ba ko gaayee falee dafa pexe ba jege askanam wa askanam wa am problème ne ko li ñu amoon ak néew saay-saay yaa ngi koy sàcc ñu ngi sàcc suñu nag yi ñu ngi sàcc suñuy xar yi ñu ngi sàcc suñuy tool ñu ngi sàcc suñuy moomeel dañoo bëggoon léegi ñu yëkkati alal jox la ko nga defal ñu benn miir bu mën a traversé suñ digganteeg moom ba yàqkat yooyu saay-saay dootu ñekk ci ñun mën a déedéet jox ngeen ma jox doole fal ma rek doy na bu leen ma joxati dara lu ngeen ma joxati kay amatul moo tax ñu ne ko xaalu yaa zal qarnayni inna yajuuja wa majuuja mufsiduuna fi l ardi fa hal naj'alu laka xarjan ala an taj'ala baynakum wa baynahum radman ala an taj'ala baynakum wa baynahum saddan lu mu ca teg qaala maa makkani fihi rabbi xayrun fa a'inuni bi quwwati kon loolu lu am am solo la dafa ne doole ji ngeen ma jox doy na seen doole laa boole ba tax tey ma am doole kon bu ngeen ma santee lu ma war a man du ma leen laaja ci dara loolu nag jege population am moo ko may loola waaye bu ngeen fi falee koo xam ne tabaarakallaahu bu ngeen ko mayee ay dunk ba ba mën a sax yi dunk bu naawee bàyyi leen ci gannaaw da ngeen am problème waaye seet leen ku leen jege bu ngeen gëstoo gis ko juróom-benneel ba maire boo xam ne moom la tuddee xorontoŋ moo koy jàngale moom mooy maire boo xam ne dafay fexe tànn naa nekk ci naaj wi ngir sama local yépp nekk ci ker yi naa tànn coono yi ngir sama waa gox nekk ci noflaay naa tànn tàngoor wi ngir sama waa gox nekk ci sedd bi kooku nag ki koy jàngalee dëgg mooy xorondong moo doon meeru waa xorondong ya ba alquran di jàngalee suleymaan ak wa xusira li suleymaana junuuduhu min al jinni wal insi wa tayri fa hum yutahun xata ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayyuha namlu duxuloo masaakinakum loolu kon gis nga moom gis na lu leen di lor lu sori mu fexe ba gis ko ne leen dugg leen ci seen pax ci seen pax yi balaa loraange dee ñëw def ci seen biir kooku bu leen jegewutoon ak di leen xamal fi ñu war a nekk loolu du ko mën a am kon daal su ma doon tënk dama leen di wax ne tànn leen maire boo xam ne ñi ko mat bàyyi ci gox bi yépp dana leen xormaal def leen ni bàyyam naa lu nit bon bon nag mën a xormaal sa bàyyi tànn leen maire boo xam ne maanaam gox bu ngeen mën di nekk bu ngeen ko tànnee ñi ko ñi mën a jur ñépp dana leen def ni doomam képp ku mën a jur dana ko jàppee ni doomam lu nit bon bon boo amee doom war koo mën a yërëm ñetteel bi ñi nga xam ne mënuñ koo jur mënul leen a jur dana leen def ni ay mbokkam waaw ma ne koo xam ne ñu ko mat baay yëpp bu leen defee baay ñi ko ñi ñi ko mat doom yëpp mu def leen baay mu def leen doom ñi ko mat ñi ko matul baay matul ko doom mu def leen mbokk su boobaa ñettay taxaw ñi ko mat bàyyi yëpp dana leen xormaal kon foog mu xormaal mag ñi waaye bu ngeen fa gisee maire boo xam ne boo ko jiitalee la muy njëkk a wane ak ñàkk teg yéen mooy xotti xormaay mag ñi boo waxee mu ne yéen jàngu leen xamu leen dara ay kaw kaw ngeen xeewuwu leen nangam ak nangam jaaree ci ak yeewoom ba li ngeen amu jéem koo sàcc ngeen am problème waaye nag dana jël ñi ko mat bàyyi yëpp mu def leen ni bàyyi fexe ba ñi ko mat doom yëpp mu def leen ni doomam ku am doom yërëm ko waaye tamit ku am mbokk man koo jëriñ na koo xam ne boo ko falee mu jël mag ñi xormaal leen ni baayam jël ndaw yi yërëm leen ni doomam jël ñi nga xam ne nii ak maasandooram lañ jàppee leen ni mbokkam maire bu mel noonu gox bu mën di nekk mairie ba dana avancé te foofa jàmm rek ka fay nekk foofa tamit xéewal rek ka fay nekk moo tax Seydina Omar mos naa fal benn gouverneur keroog ba mu signé décret bi ba pare ba waaja dara desul lu war a dem Omar doomam ñëw mu di ko fóon Omar di fóon doomam gouverneur ba ne ko ay ah, yow Seydina Omar da ngay sa doom mu ne ko waa dama koy fóon ngir yërëm ko mu ne ko man am naa fukki bant mosuma cee fóon kenn keroog la Omar xotti décret ba ne ko yow tey ma folli la doon te faloo góowoon ndax ku manta yërëm sa doom doo yërëm doomi jàmbur yi kon fal leen ku leen ni yërëm fal leen ku leen ni xormaal fal leen ku leen amal njariñ am ngeen occasion ku ngeen mën a fal ñi xëccoo xam ngeen leen kenn ku ne xam ngeen ngeen xam ngeen seen baay xam seen i doom xam seen i kenn ku ci des gox ba mën a ne rek xam na loola loolu ci ci wate bii rek nga ko amee yeneen yi ci def yëpp mënoo koo am ndax ki ngay fal muy sàkku ci yow carte dafa laa jage juróom-ñaari melokaan yi ku ko mën a melokaanoo njiit la bu ko parteem investir jàppale leen ko ak parti bu mën a doon ci cinq cent cinquante sept maires yi juróom-ñaari melokaan yi kum nekk ci yow même bu la kenn jiitalut na gox bi yëpp jàppoo ne ko ñun ñoo la jiital te ñun ñooy électeurs yi nga xam ne suñ kàddu rek mooy compte suñ kàddu rek mooy compte melokaan yi kum nekk ci yow mat nga jiit mu des nag yow électeur bi dama leen ñaan yéen ñi may déglu yëpp yore seen carte yi war a sànni ci cinquante ci cinq cent cinquante sept maires yi waaye waaye bu leen ñàkk bu leen ñàkkal seen bopp fayda bay soppi seen bopp marchandise mu ñuy waxante ni doomu aadama fooree ak i noppam ni doomu aadama sellee ak fi ko yàlla teg ci wala xadd karam naa ba ni aadama nga ñàkk fayda wàccee sa bopp ba ba delloo sa bopp ci su mar da naaw lii saafiliina ne man kat boo ma joxo saakoob ceeb ma wateel la ci juróomi at yaay yomb juróomi at yi mu ci benn saakoob ceeb wala nga ne sax loolu bëri na boo ma joxoon ñaari junni rek ma jox la sama carte bi te xam nga que wat yi dafa doy waar wat yi élection yi musul am ndax raw gàddu la conseil yi mënuñoo fal benn maire électeurs yi rek ñooy fal ku raw benn carte rek su boobaa sa carte boobu boo ñàkkee fayda bañ jënd ko ci yow yow jaayaale nga sa sa askan wi yëpp ci benn ci benn saako ceeb ndax seet leen ñi ngeen di jox seen carte yi càmbar leen ko bàyyi ko xel seggat ko ba mu doy la nga xam ne sa carte bii fardu kifaaya la dañ koy yóbbuwaale ñu bëri nga bàyyi ci xel am na ñoo xam ne nag dañ doon gën nañoo sax yomb ne man waxatuma saako ceeb waxatuma ñaari junne boo ma joxee tiset rek booyee boo sax defee sa bopp ma yandu ko sol ko nekk ci naaj wi di la tàccu rek te bu ko bàyyee may ëbbaloon tool du dem ñàkk fayda kon am leen fulla nit du jaay boppam lislaam dafa fekkoon ñuy jaay nit ñi mën a loolu na dakk dafa fekkoon ñu jël ni ñu def leen ni jaam mën a loolu na jeex yow lislaam tinki la nga tënkaat sa bopp di ko jox nit kenn gënu laa doxati ñaareel bi bu leen nangu benn leader bu mën a doon lu mu bokk bokk ak yéen ak lu mu leen jege jege bu leen nangu mu yàqal leen seen ak bokk gi yow laay faral tax ma saaga keneen yow laay faral tax ma xulóoxal keneen yow laay faral tax ma xeexal keneen deret bi ca bari di ca tuuru ñu bari di ca dee bu la ko kenn jaral ku fi jar jaay sa bakkan amu fi te ku ci jaay sa bakkan boo dajee sa borom da nga xam ne bakkan yàlla bindut ko woon ngir di ko wanteer kon mbokk gi leen yàlla takkee bu leen nangu benn politicien yàqu bu leen ko nangu te juróom-benni mbokk yi yàlla di takkee ci alxuraan yëpp dajee na ci tànt bi dajee na ci mbooleem mairie yi may déglu yëpp ci gox bu ñu mën nekk ca local bi alxuraan juróom-benn mbokk rek la tudd juróom-benni mbokk yooyu bu leen nangu kenn yàqu amu ci koo bokk ak ndayet bàyyi ki nga bokk ak ndayet bàyyi mu far ci parti bii yow nga far ci parti bale wala mu far ci maire bi fee far ca kële ala kulli xaal bul la jaral ngay xuloog moom ba seen mbokk ga di yàqu sa mbokk sa bopp sa mbokk sa bopp alquran ay jàngale sa mbokk sa bopp yu suñ si yàlla Muusaa ba gaa yi di jaamu yëg ko ña jaamutu leen yàlla wax fa tuubu ila baariikum faqtuloo anfusakum anfusakum jooju mbokk ngay rey jàpp na ne ba rek sa bopp nga rey kon sa mbokk sa bopp kon mbokk bi ci njëkk ci alquran mooy ko bokk ak ndey ak baay moom la yàlla jàngale ci doomi yonent yàlla aadama yi ci diggante qaabil ak haabil ne fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin mu jige yàlla demaat ba ci kanam ci suratu nisaa yi mu ne mbokk gën naa yaatu koo bokk ak ndey ak baay koo bokk ak ndey rek mbokk la koo bokk ak baay rek mbokk la ni ngi koo bokk ak ndey ak baay xoolal ni mbokk foore sa yaayu ëmb la juróom-ñeenti weer keroog bam lay matu bakkanam naroon na cee des sa yaay moomu tey boo deewoon mu ñëwoon ñu war war laa donn si ñaari cër la mën a am ci yow bu doom amee sudus bu doom amut sulus waaye kulus booba bu doom amul doomi doom amul bu fa ñaari mbokk nekkee rek moo xam mbokk ci ndey ak baay moo xam mbokk ci baay moo xam mbokk ci ndey rek bu matee ñaar jëm kaw rek yaa ngi day toxaloo ci sulus jëm ca sudus fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus mbokk foor na xoolal fi yaay jaar ak doom waaye tey mbokk tey ñaari mbokk ñoo toxalee yaay ci sulus dem yóbbu ko ci sudus yàlla ne sax waxatuma meen waxatuma gaño ci diggante nday ak baay mbaa baay mbaa mbaa nday rek waaye koo bokk ak famille sa mbokk la bu leen ko yàq yéen ñi sant jóob yëpp mbokk ngeen ña ca bawal ak ca kajoor ña ca njàmbur ak ña ca yëpp mbokk lañ bu ñu lijjanti ko ñi sant njaay yëpp mbokk ngeen yéen ñi maanaam jaxumpa yëpp mbokk ngeen yéen ñi sant mbay yëpp mbokk ngeen ba ci yéen ñi sant siise sax euh, maanaam ay mbokk nga moom la alquran wax ne wa ila wa ila samuda axaahum saalihan wa ila aadin axaahum huudan wa ila madyana axaahum soayban pourtant mbokk gi du dara lu dul xabilatu famille rek lañ bokk waaye wan ne koo bokk ak rek sa mbokk la famille nag mooy sant yi moo koy moo koy firndeel sant sant yi mooy symbole bi ñu bokk sant ñëpp koo joxati rek ba yóbbu nga ne doomu bàyyi yéen a bokk ak lu ngeen soree sore yàlla ne noo loolu xat na waxatuma ndey ak bàyyi waxatuma bàyyi waxatuma ndey waxatuma famille mais koo bokk ak métier sax sa mbokk la alxuraan wan na ne baykat yépp mbokk lañ sàmmkat yépp mbokk lañ commerçant yëpp mbokk lañ ñu yëngatu ci wàllu transport yëpp mbokk lañ ñoom sax teel nañ koo comprendre boo waxee mu ne kii sama mbokkam baykat la kii sama mbokkam sàmm la kii sama mbokkam moodu moodu la kii sama mbokkam transporteur la kii sama am maanaam commerçant la moom la alquran ne inna hada axi lahu tisun wa tisuna naajatan wa lii naajatun waxida pourtant bokkuñ la dul caawa ga rek caawa ga rek moo tax mu ne inna hada yàlla ne gën naa yaatu loolu lépp saa waxatuma métier mais koo bokk bëgg-bëgg muy lu baax mbaa lu bon mbokk ngeen mais nag ñi nekk ci lu bon ñoo ko réussir ñi nekk ci lu baax moom dañ saa échec ñi bokk bëgg-bëgg ci lu bon lépp nangu nañoo ànd mais ñi bokk bëgg-bëgg ci lu baax kenn ku nekk yaa ngay fiir sa morom di ko soxore te jàpp ne moo la teree feeñ tey boo demee kat tuxkati cigarette yëpp doonte cigarette baaxul ñépp a ànd juboo koo ci dend ak may la mego naankati sàngara yépp juboo nañ koo ci dend ak mu ne la mën naa laa peeye nga naan moo tax nag bala ñoo naan nekk xarit buñ màndee xarit ga yàqu kartakat yépp mbokk lañ réussir nañ ko bala ñoo carte dañ juboo mais bu buñ dàqantee rek karta ga toj rek ñu xeexoo ma ne la mbooleem ñi yëngatu ci wàllu sport ci football beeg lambu jeeg ñépp koo wax mu ne kii ñoo bokk écrit waaye nañu yëngatu ci diina ji fiirante gi soxorante gi añaanante ji liggéeyante gi bu sa xol rafetul doon nangoo yaatal kenn da ngaa jàpp ne kii moo ma teree feeñ te yàlla bu la xasee nëbb bu ñëpp dee woon doo feeñ kooku mooy wa nazaana maa fi sudurihim min xillin ixwaanan ala sururi mutaqaabilin waaye nag ñu nekk ca lu bon rek ñoo ko réussir mbokk gi dana yaatu yépp nag mooy nekk jullit boo taxawee ne ashhadu an laa ilaha illa allah sa mbokkam jullit taxaw ne ashhadu an laa ilaha illa allah rek sa mbokkam jullit la boo fa nekkatee na ko ban tariqa nga bokk kuy sa sëriñ ndax yow gëm nga tariqa mbaa da nga koo weddi loolu lépp fii rek saytaane guy yàq la innamal muminuuna ixwatun yàlla da koo bañ ba xasru ko te addawaatu xasr yépp innama moo ci ëpp doole dafa amee ñaari maana ñaari xaraf dafa am dafa am maanaam ma amee maanaam illaa mal muminuuna illaa ixwatun kon nga xam ne kon mbokk ci jullit am na doole waaye tey saytaane ngay jël du ay fiiram yu kenn xamul kii sa mbokkam julla mu ne noo ibaadu la dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo kii ne non kii salafiya la salafiste la dañoo ëppal ngeen nekk di noonoo di saagaante ci ci réseaux sociaux yi lu ko jar te yéen ñaar ñépp nekk di ay jullit kon yooyu yëpp juróom-benni mbokk yi ma tuddal leen ci alxuraan bu leen nangu benn politicien yàqal leen ko te juróom-benni mbokk yooyu yëpp sankee nañu ci ñi ci tànt bi yëpp amul kenn ku ci génn mbokk ci baya ngi fi mbokk ci sàmm ngi fi mbokk ci commerçant ngi fi mbokk ci famille ngi fi mbokk ci ndey ak baay ngi fi mbokk ci meena ngi fi ñépp a bokk kon nag nag kenn ku ci nekk jox loxo kam ne na ko baal ma àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu